ci mel ni euh, Guy Marius Sagna Ayib Daffé mm. dafa mel ni pata pataaral nañu woote jëmale ko ci li nga xam ne nag moom di loi bi lan moo lan moo waral cest à man man su ngeen wax pata pataaral daf may jaaxal mooy cest à nit ki mm-hmm. des yuy entretenir seen discours bopp mm-hmm. xam nga tey su doon benn mbir boo xamante ne vient de Pastef mais di nga am clairement lan mooy ñoom seen gis-gis ci loolu mm-hmm. mais loo xam ne jógewul ci ñoom un projet du président a jamais ñëw ñëw assemblée. mu mu am coow. Euh, ba ba ñoom guy wax ci wala ñoom ay daf wala wala l'opposition wax ci. te jógewut à la présidence. à chaque fois pro projet pro euh, euh, projet de loi yi foofu lay jógee bu ñëwee ñoom ñoom ñoom ñu wax ci liñ ciy wax mais mm-hmm. bii pat pataral lañ def li nga wax noonu moo boobu moo moo ci am. donc donc y quelque chose léegi. Uh-huh. Ousmane Sonko dañ ko tëj prison ak eh. tant d' autres personnes. moo mhm. mhm. léegi si yow yaa jàpp nit ki yow yaa ko tëj. yow yaa ko jiiñ c' est à dire ay sa ay chef d' ci kawam. Mhm. ba mu neex la man sàkku ma ko ci yow. man néew ma la am ne si yow ma neew ma la baal ma néew ma jaaralee ma fii. yow yaa dem def say manœuvre ba réer ba xamatoo foo jëm nga ñëw jël sa sa décision bopp. et je pense que tey jii euh, si la ñu ñëpp ñu gis ce qui se passe tey le camp de Pastef ñun gis ñëpp en tout cas ñu wax. ils ont été clairs par rapport ak sujet boobu. lu jëm si am na si ils sont contre sa ñoom ñëpp amul kenn koo xam ne mu ngi ci biir Pastef. man de gisuma kenn koo contre moom gisoo kenn. ku ko contre quoi. Ah, kon xëy na Sénégal yi nekk moo bokkut. non <laughs> mais tey jii nii ñoom ñëpp benn taxawaay lañ am. Mm-hmm. mënoo ma wax kenn koo xam ne gis nga ko Sénégal Pastef koo xam dafa taxaw ne dafa nangu amnistie amul. non amul benn voix autorisée ci Pastef bu taxaw ne nangu amnistie kenn waxu ko ma dégg ko mais mais kenn waxut ne nanguwut ma dégg ko aussi. kenn waxul nanguwul. ma man ci ci leader laa waxuma la waxuma la koo xamante ne peut-être. avis personnel am rek lay lay lay jox mais mais mais au nom de de mm-hmm. gis gisuma ko wax quoi. mais mais yow coalition nu mu tudd ba euh, Diomaye président communiqué yi ne fi. Mhm. sorti yi ci am. que ce soit El Malick Ndiaye defuñu amul benn communiqué bu Diomaye bu wa wax ne wax ne ñoom nanguwuñ ci nanguwuñ ci ci ci situation bi ni mu demee. que ce soit El Malick communiqué amul. c'est-à-dire des gens de passé. peut être naa la mais communiqué moom amul génn ñëpp même discours bi lañ am yow xëy na yaa dañoo bokk. communiqué communiqué wuñ wax ko moom. communiqué wuñ lan non non gis ma ko vraiment. communiqué amul fenn fu ñu taxawee wax na ñun amuñ ci amnistie. def bind bi ñu communiqué ne d' accord ñu ci amnistie. Euh. non non non. d' accord loolu. loolu moom loolu moom loolu moom nga vérifier moom. wa wa léegi xam nga des fois naan gis euh, bu fekkee dafa am benn projet de loi da ngay gis Yewwi Askan def conférence de presse wala benn déclaration mais cette fois si euh, nu noppee ni moo xaw jaaxal jaaxal nit ñi donc si je comprends bien Faye si sa biir kàddu tekka tekkaaral bi dafay signifier que ñoom ah, par nañu pour adopter loi bi fële ci assemblée. convoqué nañ convoqué nañ convoqué nañ euh, président groupe parlementaire yi. Mm-hmm. ñoom dem nañ. Mm-hmm. approuvé nañ affaire bi ba mu ba ba mu dem ci ci ci maam Diop. Mm-hmm. ñoom approuvé nañ ko. Ah pourquoi. donc donc nañu dañu bàyyi sénégalais yi ñuy nax te ñu te ñu te ñu waxan dëgg. xam nga man je défends pas je défends pas man du ma def du défendre. Euh, cette situation là. que mm-hmm. que que ñoom lii lañ war def fële lañ war non non non mais dama ne y a des faits yoo xamante ni faits yi nii la demee. Mm-hmm. sànq aussi moom mu ngi mu ngi wax bay tudd bay tudd ay dossier CPI y a pas un y a pas un dossier à la CPI amul dossier bu nekk. loolu loolu di dinañ si ñëw. voilà dossier ah, dossier CPI non bëgg dinañ si ñëw. dama bëgg def benn taxaw seetlu non non non non dossier CPI maa ngi si ñëw dama bëgg def benn taxaw seetlu ci li nga xam ne nag moom mooy député Yewwi Askan Wi ba pare. Ah, parce que yow léegi léegi nee nga ñoom approuvé nañu li nga xam ne nag. mooy mooy loi bi approuvé nañ ko parce que parce que convoqué woon nañ convoqué woon nañ président groupe groupe groupe groupe parlementaire yi convoqué nañ leen. Mhm. ñoom ñoo ñoo ñoom ñëpp ñu approuvé ñu approuvé ko ñu approuvé ko. Mhm. ba ba mu ngi ci tableau euh, kii di kii di Amadou Mame Diop. Mhm. donc loolu am na lu muy lu muy maanaam lu muy lu muy wone. ma ne nag peut-être. Euh, taxawuñu publiquement affirme ne ne ñoom ànd nañ ci léegi lii mais processus bi ni muy ni muy doxee. ñoom ñu ngi koy accompagner loolu loolu loo loolu moom lu leer la beneen affaire aussi mooy bu fekkee ñoom bu fekkee ñoom. Euh, euh, affaire bi ñoom lañ koy defal te neexu leen ba neexu leen. Mmh. nañ taxaw publiquement ne lii les députés taxaw publiquement bañ ko bañ ko publiquement bu boobaa boobaa bu as bu ñëwee parce que assemblée quel que soit alpha assemblée bu ko voté wut du jàll. Mmh. ñoom ñoom buñ ko voté. exactement mais ñoom même mën nga voté wul loi bi mën a jàll parce que ñu ngi ñu ngi wax euh, député euh, Benno Bokk Yaakaar na ah, mais mais mais mais mais bi mais mais ba ñuy wax li nga xam ne nag moo nekkoon 12 décembre boobu aussi même situation lañ taxawee woon waaw ah, mais mais bi ak 12 du benn de ah donc cela veut dire que ni mën nañu am li nga xam nag moo di oppo euh, majorité mécanique ñoom ak waa PDS. nu non mais mais ku la ne benn bokk yaakaar ak PDS dañuy ànd PDS hmm. dañoo dañoo PDS dañoo am seen groupe parlementaire bopp. Hmm. ñun aussi ñoo am suñu groupe parlementaire euh, ñeneen aussi comme ñeneen amee seen groupe parlementaire bopp. Hmm. maintenant lan moo la wax ne PDS ci PDS dinañ ko dinañ dinañ dinañu voter à favor de de euh, de la loi d'amnistie. ku la ku la ko wax. donc mbir mbiri moom ñoom kay nañu nañu def la tout ba ba ba luwaay bañ a jàll rek. Mhm. waaw bu fekkee fekkee luwaay bi mu arrangé wul wu leen ñoom nañ def la tout ba luwaay ba bañ a jàll quoi. mënul ci du question wala ñàkk arrangé. Hmm. loi bi mbirum impunité la pense que arrangé ak ñàkk arrangé buñ koy wax dañ koy wax ci ñi hmm. kan moo am yow yaa wax sànq ci sa biir wax ne loi d'amnistie président moom moo am prérogative xëy indi ko. waaw def ko moom. waaw moom président def ko waaw président léegi mais mën nañ ko koo ñaan. moo ko ñaan. ah baax na. kan moo ko ñaan président ah leer na loolu kay. loolu kay leer ñi ci prévision ñoo ko ñaan. xam nga c'est-à-dire ah, ni ko ni ko bëgg a defee dafa yomb mooy toog rek ne euh, am na ñu ko ko ñaan am na am na ñoo xam ne waxuñu bañuñu lii. bien sûr tey fi ma toog nii li may wax nii si laa xam na ko ñi may suivre xam nañ ko mooy yow mii di ma jàkkaarloo man xam nga ko. mooy tey jii toutes les voix officielles de Pastef. képp ku ci génn wax li nga wax c'est très clair mooy ces gens là ils sont man de man man aussi man ne la duñ ma di di duñ manière direct gisuma. ku ci wax ku ci wax au nom au nom soit de la coalition wala au nom de l'ex-Pastef. <laughs> li ma la ma la li ma la maa ne des avis personnels moom mën na mën mën na am. comme ni ma la ko waxee au début nee naa la la loi d'amnistie comme euh, nit ku mel ni man wala wala wala keneen koo xamante ne nii bon taxewoo ci laale woo ci. Mhm. Euh, di manière direct amoo ci am am maanaam apporté wu la dara d'une manière directe maintenant de manière indirecte on peut on peut modéliser mën nañ analyser mën na dans différents angles li lim la lim lim la mën a lim la mën a yàqal la fay noonu mm-hmm. maintenant d'une manière directe ñun ñun ñëpp béné ñun ñëpp duñ ci bénéficié wu. Mm. d'une manière directe maintenant nag ñi nga xamante ñoo ci bénéficié ñi nga xam ne ñoom la visé ñu ciy bénéficié d'une mm-hmm. ñu wax ci. kon mm-hmm. loolu laa wax. ma ne nag loolu kon ñoom d'accord nañ ci. alors moom moo tey jii bu fekkee euh, député Yewwi Askan Wi rawatina ñi nga xam nag ñoo faree ci parti bi di Pastef bu ñu mm. d'accord ci loi amnistie bi est-ce que loolu aussi mënul nekk benn jeexital seen kanam fii ak man de gisuma gisuma ñu gisuma am xam ne man su ma si demee dama ci nekk responsable cest a dire euh, aujourd'hui je peux pas man ma xam ne ces gens là ils sont ils ont benn discours bu clair boo xamante ne ils sont contre mhm. cette loi d'amnistie ma bëgg di débat ci non bu fekkee ne accepté nañ ko alors que man je sais que ces gens là n'ont pas accepté mhm. cette loi d'amnistie c'est-à-dire loolu dafa mel dañuy réeral nit ñi quoi mhm. mooy aujourd'hui ci moment boo xamante ne ñun ñëpp xam nañ ne ces gens ils sont contre la loi d'amnistie wane ko ñëpp gis ko. Mhm. set le voix autorisées de Pastef yëpp génn wax ce même discours là que ne ñoom ils sont contre cette amnistie. Mhm. ñu ko taxaw naan bu fekkee ne nangu nañ ko. c'est vrai que tey jii mais comment on peut tey. Mhm. li Pastef subir ju ci ci at at ci at ji wala weer yi ñu jóge ñu dem à un certain moment président Macky Sall ci boppam moom moo am intérêt à ce que amnistie boobu am. amnistie bi kenn amnistiewul Ousmane Sonko kenn amnistiewul Bassirou Diomaye Faye kenn amnistiewul kenn. président Macky Sall boppam lay amnistie sànq yaay wax ci dossier CPI nga ne dossier CPI amul. waaw man maa ko wax de dossier CPI amul. amul baaxul dina ci xam dara après ce qui est sûr mooy gis nga mbir mi il faut ñu éviter di réeral nit ñi. Mm-hmm. mooy on sait tous que euh, tey jii si sujet bu am bu nekk tey jii afam ay voix autorisées ci Pastef yoo xamante ne nii en tout cas ñaanuñu amnistie ba pare ba amnistie coowal amnistie génne dañoo génn wane ni ñoom ànduñ ci loolu. Mm-hmm. seen leader yàgg di yëkkati discours boobu jaxase xelu nit yi di leen gëmloo ne bon am na ñoo xamante ne nii dañoo nangu amnistie bi ñëpp sénégalais yi tamit ñun gënu xam li xew ci réew mi. Mhm. ñëpp xam nañ ne actuellement amnistie bi ku ko forcé imaginer le président durée bi ñu ko annoncé ak fast track bi. Mhm. mais xool amnistie bi ni mu gaawee kañ kañ la ko président annoncé. Mhm. ñuy wax pareeguñ ñu dem ci dialogue ba dialogue ba bu fekkoon amnistie lu ñuy waxtaanee la président daf ko indi teg ko ñu waxtaanee ko. président waxtaanul ak kenn amnistie. c'est quelque chose moo xam ne moom moo ko bëgg moom moo koy defal boppam na ne moom la mu teg ko ñuy wax déetewaay bind na mbir mi yóbbu ci table assemblée. Uh-huh. ñuy wax pareeguñu commission ñu ga euh, euh, con convoqué réunion tey ñu ngi commission ni defe naa. Uh-huh. suñu paree dañuy dem voté ji ko waaw mais loolu est-ce que ban projet de loi nga gis mu gaawee nii ci réew mi lu dul lu arrangé président Macky Sall. Uh-huh. on veut nous faire croire que bon dafa am waxtaan wala dafa am ñoo xam dañ ci ànd kenn àndu si Pastef bëggul ku ko amnistier Ousmane Sonko bëggul ku ko amnistier et d'ailleurs nekkul ñoom la ñuy président boppam lay amnistier mhm. circonstance boobu nag bu ñu nekkee mais président bu dee moom dafa bëgg amnistier boppam qu'il assume que moom boppam lay assume amnistier mhm. na taxaw suñu kanam mën nañu man da maa dénk mi maa fii def njaaxum diggante ak 2024 léegi mais bëgg a jël mbir moomu teg ko ci kaw opposition bi wala teg ko ci kaw ci kaw ay waa Pastef pour dire que voilà non ñoom ñu ànduñu ci ak ànduñu ci le débat c'est pas Pastef ànd nañ ci wala ànduñu ci le débat mooy tey jii gis nañu en tout cas toutes les voix autorisées de Pastef benn wax amul kenn ku ci waroo ak sa morom benn wax bi lañ wax mooy ñoom ànduñu ci lépp loo xamante ne mbiru euh, mbiru euh, impunité la mhm. ak lépp loo xamante ne tey naka la mën a comprendre ay nit ñàkk seen bakkan ci moment yi ñu bëgg xëy benn gis gas ko suul amut benn voix autorisée bu wax te waxut ci sensu maanaam xeex li nga xam ne moom moo di amnistie bi. Mhm. donc on peut pas nous faire croire que ces gens là dañu ànd ci loi d'amnistie loolu c'est impossible. exactement merci euh, ñu ngi lay jaajëfal lu baax a baax euh, fay sànq yaa ngi tudd euh, li nga xam ni moom moo di mbirum CPI. yaa ngi ñuy xamal CPI boobu amul alors bu ñu remonter le temps un peu en arrière ci manifeste.